salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif zaal de Mouride yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mooy yëkkati ay kàddu yu cant ak yooyu nuyoo di ko jëmee ci mbooleem njabootu sëriñ Touba gi ak taalibey sëriñ Touba yépp di leen yëgal nag mbis bu màgg boo xam ne sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha moo koy yëgle muy tegu xeeru liggéey bu mag bee nga xam ne moom la jox ndigal eh, sëriñ Pape Fall mu war koo liggéeyal réew mi liggéeyal ko Touba waaye liggéeyal ko Serigne Touba Khadim Rasoul ca hôpital Cheikhul Khadim ba mu di ay batiment yoo xamante ne bii dana ko liggéey mu toll ci ñeen téeméeri néeg ak ñeen fukki néeg téeméeri chambre ak ñeen fukk ak ñaari suite loolee nag dañoo war a teg xeer wa le 3 février incha allahu rabbi moo tax Cheikh Mamadou Bassir nee na ci woote bi mu di ko yëgal njabootu sëñ Touba gépp waaye di ko tàmbalee ci sëriñ Abdourahmane mu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma waaye jaar ci Serigne Sidi Sarr xalifa euh, Serigne Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Thierno jaw moom Serigne Modou jaw Paxa waaye ak Serigne Moustapha Khoudia jaw moom Serigne Abdoulahi jaw waaye di ko yëgalit mbooleem njabootu maam Cheikh Rahima Fall gépp waaye jaare la ko ci Serigne Cheikh Fall moom Serigne Aliou Fall Mbawar ak mbooleem njabootu Serigne Yaram Mbaye gépp di ko yëgalit mbooleem njabootu Serigne Mouhamad Lamine Diop Dagana ak mbooleem njabootu Serigne Moudou Mamoun Niang gépp nag waaye di ko yëgal buntu kër yi Serigne Touba yi bàyyiwul benn buntu kër la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mahamadou Mourtada di ko yëgalit njabootu Serigne Touba jigéen gi li ko tàmbalee ci kër soxna faatija ba ci bintu eh, buntu kër soxna may Maymunatu Mbàkke Suxra di ko yëgal fukki buntu kër ak ñaar yu maam maharam yi bàyyiwu ci benn di ko yëgal mbooleem njabootu sëñ mbakke Mor ant Sali gi li ko tàmbalee ci kër maam Mor Jaara borom saam ba bëggee ñëw ci kër sëriñ sàmba bàyyiwul benn buntu kër di ko yëgal it képp koo xam ne sa maam jaayante woon na ak sëriñ Touba ca Mbàkke Kajoor wala ca mbakke Bawol wala ca Daaru Salaam wala ca Mbàkke Baar yi wala ca Touba wala ca Mbacke Bari wala mu dem Gànnaar wala ca yéen ba ba muy ñëwaat njaareem diggante bi ku fi sa maam jaayanteeg Serigne Touba ñu ngi lay yëgal bis boobu di ko yëgal seex yëpp bàyyiwuñ kenn waaye di ko yëgal nag <clears throat> ministre de la santé mu bàyyi koo ci docteur Sona. ba muy àgg ci président la république bi nga xam ne moo di Macky Sall te jiite réew mi waaye di ko yëgal it mbooleem organisation yi ak parti politique di ko yëgal mbooleem daayira yi nekk biir Touba ak yi génn Touba bis la trois 3 lay doon bu 11h jotee ca hôpital Seyxul Xadim bi Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khadir nee na ma ngi fay séentu ñëpp di ñaan ku fa teg sa tànk rek yal na yàlla tàbbal ci biir waqdi hawaaij allazina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.